di ñaanal ñëpp jàmm di jiital ci ñaan googu Cheikh Mouhamadul Mountakha suñu borom yàggal ko fi lool tam ànd ak wér balim fas yéene liggéey sëriñ Touba lépp mu sottal ko te ñu ànd ko moom. Euh, li doonoon sama kàddu rek mooy coow yi am jamono ji ngaabu muy coow yoo xam ne fu nekk la ko nit di déggee yàlla dogal itam ñu am ci responsabilité ndax doonoo dëkk ci dëkk bi bokk ci njabootu dëkk bi itam am ay mbokk yu ñuy laaj jamono yii yëpp. ay xew-xew yu am ci ngaabu kon na jot nañu leeral sëkk euh, li xew ngaabu ak lu mu doon ñu leen wax ne ngaabu jàmm rek moo fi am ngaabu jàmm rek moo fi am xam naa daal lenn rek mooy yi nga xam ne moo waral coow yi muy ñu wute pas-pas rek moo waral coow yi te loolu yàgg naa am ci jamono ndax jamono joo gis rek kenn ku nekk ak la muy dund ndax ñu ñii di wax ak yenn Cheikh Ibrahima Lo mii sunu maam jur sunu waajur góor moo sañcoon dëkk bi mook Cheikh Amsatu magam Cheikh Ibrahima Khalil mi nga xam ne moo nekk ngaabu itam moom ak man su ñaari bàyyee bokk benn baay man mii di wax ak yéen am naa mag jigéen joo xam ne mook Cheikh Ibrahima Khalil ñoo bokk ndey bokk ak man baay docteur Mouhamed Ahmed Lo moom ñuy wax baayam ak sama maam ñoo bokk ndey ak baay sëñ Modou Lo Isa mii baayam ak Cheikh Ibrahima Lo mii sama maam ñoo bokk ndey baay kon lépp rek ci mbokk gi la. xanaa di jubbanti ay mbokk yoo xam ne bi ma seetaani discours yi doon defal ñoom ñooñ ca dakaar jubbanti ay mbokk yoo xam ne la wax dañ dama xamul fu ñu ko teg ndax dañoo wax ne mboolem taalu jàng ba nga xamee ni moom la sëriñ tuubaa defoon ca Ngaabu Cheikh Ibrahima Khalil Lo moo fa nekk dëgg la Cheikh Ibrahima Khalil mi ngi liggéey liggéey bu am solo ci alxuraan ci Ngaabu te ñëpp nangul ko waaye taalu jàng yooyu nag taalu jàng yu takku la. ndax man mii daara ji ma jàngee alquran Cheikh Ibrahima Khalil la tudd te bokkut ak Cheikh Ibrahima Khalil mii ndax Cheikh Ibrahima Khalil mii sëñ Abdou Karim Lo moom Cheikh Ibrahima Lo mooy waajuram am na keneen ku ñuy wax sëriñ Mouhamadou Abdourahman Lo doomi sëriñ Daam Lo fii may waxee yow rek taxawal na daara joo xam ne ngaabu ñetti téeméeri donga ña ngi fay jàngee alxuraan te kenn du fay weer lépp seen lépp moo ko yor mu ngi tabaxaat daara joo xam ne lu mu gàtt gàtt juróomi téeméer juróom benn téeméer donga wala juróomi téeméer donga muy 600 donga wala 500 donga dana ko jël kon xam nga liggéeyub Serigne Touba yàgg na ngaabu moo tax nit ki ñaare bu nekkee ci barab te maîtriser wu la muy wax ah, di bàyyi xel bu baax la muy wax da ci am solo bu baax a baax. Ah, docteur Mouhamed Ahmad Lo sunu waajur la maa ngi dégg ay kàddoom léegi mu wax ne. Euh, Touba moom ku nu foo waxoon génnal kilifa nga bu nu waxoon génnal ñaar ñett dun ko dégg duñ soxla sax kunu jox alal jënd defoon ci kër ya waaye Cheikh Ibrahima moom kenn mënu koo génne ngaabu ñu ñaanuñ yàlla mukk ñu génn docteur Ahmed ñaanuñ yàlla mu génn Touba Cheikh Ibrahima ñaanuñ yàlla mu génn ngaabu ndax ci ngaabu lañ bokk ak Touba waaye nag ab barab boo fa nekkee te barab ba lépp aju ci sëriñ tuubaa muy ngaabu ak Touba lépp dafa aju ci Serigne Touba. ndax tey jii fii ñu toog ji ngaabu bu sëñ Muntaxa waxoon ni ngaabu damaa soxla mool ya nekk ci kër yi ñu dindi ko sax andil ma incha allahu dañ koy dindi andil ko ndax ngaabu ak taali bi rek fi am sunu maam ya moom lan xam sunu baay ya moom lan xam kon mbooleem ñi ci àll bi li tax ma def audio bi dafa am ay mbokk yu bari yu may woo depuis bi xew-xew bi amee ba léegi tey jii itam ay mbokk yu ma waat ca Brésil di ma laaj naa ma ngaabu lu fa xewoon ngaabu lu fa xewoon nangam ndax ndaje mi ñuy def ndakaaru nangam nangam moo tax naa ma ne naa leeral ngir ñëpp yëgandoo ko xam ne ngaabu daal dëkkub Serigne Touba la taalibe Serigne Touba itam moo fa nekk ña wuutee pas-pas itam ñoom la ñeel waaye ñun de sunu lépp ak sunu ñëpp ci Serigne Touba la jeex ba faaw ñu ngi ñaanal nag yàlla defal ñëpp jàmm yàlla defal ñëpp sutura yàlla defal ñëpp tawféex ndax Cheikh Ibrahima Khalil moomu de mag la boo woon tey yónni ma tey jii faaw ma dem docteur Ahmed loo moom sama bàyyi la ba ma woon yónni ma tey ji faaw ma dem waaye pas-pas nag ak bëgg ak ngëm kenn du ca laal nit ndax ku ca laal nit mbaa nga wax ci ni dara faaw ngeen di jotee pas-pasu nit kenn du ko foyee te ñun de amul lu du Serigne Touba te ñoom ñooñu ñoom Cheikh Ibrahima Khalil ñoom docteur Ahmed loo Lo ñooñu ci ngërëmal sëriñ Touba lañ juddoo ndax baayam ci sëñ Modou Lo Issa kenn la woon ci Cheikhul Khadim sëriñ Ibrahima Khalil moom itam baayam Cheikh Abdou Khadir sëriñ Ndaam sama waaju nettali na ma ne waroon naa julli ci àjjuma Touba far saxaar ko. ba mu ñëwee toog ci raay bi xaar ab diir daal di jàng jës ba mu waahi ba mu xaddimaat fii ci ngaabu ba mu demee ba am demukaay ba dem dafa dem jox sëñ Fallou Mbàkke loxo sëñ Fallou ne ko ab duwaaw góor dégg naa la nga wax te ci ngaabu la jàngi ges bu mu waaxi ba mu xaddimaat ci altu ngaabu bi ba mu demee jox sëñ Fallou loxo sëñ Fallou ne ko dégg naa la nga wax kon kooku ak muritam ñëpp xam nañ ko kon nag nañu xam ne mbokk yi muy ñi aju ci tarixatu muridiya ñi aju ci beneen jamaaxa bu mu doon dañoo xam ne pas-pasu jàmbur kenn du ko foye te ñun de suñ lépp dañ koo jël jox ko Serigne Touba tab taalibeeb jàmbur kat boo koy boo boo booy laal booy laal kilifaam buy fayu ab sangam mën na ko bañ a yëg kon nag nañu fonkaat ñëpp fonkaat war ma yëpp fonkaat taalibe gi nu booleeg Serigne Touba koo xam ne bokk nga ci lenn ba ci yàgg doyatu la nga dem ca leen yow la ñeel. waaye ñun lii ñu bokk de muy Serigne Touba ci leen fas yéene dund ci leen fas yéene dee du doonoo fekk suñuy bàyyi suñuy maam nekk ci ñu nañ ca nekk di déedéet waaye Serigne Touba ci boppam moo nu doy moo nu doy tey moo nu doy bu ëllëgee itam